عيني رحمتي الحمد لله جزيل نعمتي لا اله خروجي ما هي عيني رحمتي الحمد لله جزيل نعمتي لا خروجي ما هي نعمتي الحمد لله جزيل لا إله إلا الله خروج ما هي عين رحمتي gannaaw bi mu bàyyi ko daaru salaam ku tedd kii di Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba ci la sañ ci dëkk bu sell bii di Touba ca yooyu jamono askan wi nga xamante ne bii ñoo nekkoon ci dëkk bu sell bi di jànkonteeg ay jafe-jafe ci wàllu ndox mu sell mu ñu jëfandikoo Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba santaane ngir ñu gasal ko teen bii di Aynu Rahmati taarix boobu nag kenn mënu koo nettali te tuddloo Serigne Ibrahima Sarr. fekk ñaan borom suñu borom may ko mu feeñ. mooy 1888 mu mu woo moo magi taalibe yi fi newoon ne damaa bëgg ku ma gasal fii ab ten wax nañ ne moom moo ko tàmbali ci loxo boppam. waaw moo ko tàmbali ci loxo boppam sotti ci liitaru sam-sam jeex mu woo mag ñi ne leen nañ ma ko gasal am na lu ma ci saa borom dik bu bënnee ñu di ko gas mag ñi ko aaye gas ko aaye gas. maanaam nag li ciy jagleeg maam Cheikh Ibrahima saar moom dañoo wax ne ci ak ci ak ayam ci la ndox mi bënne waaw bi mu bënnee nag mu jox ci sëriñ bi mu barkeelu daan ne ak saa ndox mii de euh, euh, lépp lu ci waay saafara mu saafaraw ba mu eggee nag la bi teen bi bënnee it la bind xasi dëggale sant ci boromam mooy alhamdulilahi jasiri ni'mati ala xuróoji may aynu rahmat gannaaw liggéey bu am solo boobu di teen wa aynu rahmat dëkk bu sell bi di Touba ni muy màggee jéggi dayo lool boole kook liggéey yi nga xamante ne bii sang yu baax yi sumb nañ ko fi ku ci mel ne Serigne Modou Moustapha Mbacké gannaaw bu mu fekkee ku tedd ki njaareem mu jox ko ndigal ngir mu bënn yeneen iteen ba loole lépp mën a indi ndox mu doy ci biir tuubaa jumaa ji dañu tegee xeer wi foofu ah booba dëkk bi amul dara ci ndox li ëpp ci mag ñi nga ëpp lañ daa roote ji. ndax ku xool dem bayti xool këllub Seex Ibra ba nga xam ne dana ko daa yenoo ca ngaabu di ko dafa mel ni kon. ñun root bi ñun la waroon. fii fii ngeen toog mooy daara sëñ Touba jëm sancaloon boppam fii ci Ngaabu. Eh, tubaa bi ñu koy eh, sañc mm-hmm. dañ daa wax ne mag ñi dañoo wax ne fii lañ daan roote si ay wiir di ko sëf ci ay mbaam. Mm-hmm. di yóbbu Touba nga xam ne boo àggee eh, sotti bu ci ëllëg see nga dellusi wala nga gont dellusi. Mm-hmm. loolu loolu loolu noonu lañ daan def ba ba naan bu bu xam ne toll na jamono yi bu xawee ba xat. ñenn ñi dañuy jàll ba kayal mm-hmm. waaye ñaari digg la woon yoo xam ne ah yàggees na fi am ndox mu neex yàggees na fee naan mm-hmm. ah euh, daarul moxti mm-hmm. ñoom fii lañ daan wëggee si bu ñu ñëwee ñoom it sëf seeni mbaam ay wiir wiir moom boo ko gisee ndimalu mel ne baas la ñu ñaw ko ay saako yem yi toll ci cinquante kilos su ko defee jël am kel jàmb ko ba mu kii ñu ñu tooyal ko ci col yi ngir ndox mi bañ seen ñu joyante ba dem ak moom ñoom it bu ñu àggee sotti dil si te boo amar ah, rek nekk ci jamono ji gannaaw bi mu fi bàyyikoo ci atum 1945 moom Cheikh Ahmadoul faa sëriñ Mouhamadul Fadal wuutu ko ci bopp xilaaf ak yoonu murit jëmm ju sell jooju Moussa dañ di dox ay jéego ngir yokk ndoxum dëkk bu sell bi di Touba ci kaw noonu moom Cheikh Madul Fadal moo fi njëkk bënn forage ci biir dëkk bu sell bi di Touba muy firndeel yokkute ci yoonu murit. Cheikh Madul Fadal euh, wax ñaan gouverneur fi nekkoon ne ko naa ko def ñaar benn bi mën naa ko tudd muy ñu ci Touba. Hmm. Euh, kon loolu euh, moo waral forage bi njëkk a def Touba. Cheikh Mahamadou Fadal mi nga xam ne moo fi jëkk a gas forage ci Touba muy forage su Daaru Mannaan alhamdulilah ba nga moo ko jëkk a def te ko lool buntu kër bu ne mu fexe ba ci wa àgg fa te booba wax dëgg yàlla dëkk bi ay teen a fi nekkoon mu jafe woon lool. déegu mbal bii tey fi soxna bu sa sayf dëkk booba moo doonoon déeg bu mag bi nga xam ne moo gënoon a mag ci déeg yi wër Touba bam yàggee nag. sëriñ bi nag ñu nag donga yi daal di ak sëriñ si daal di wëlbatiku nag gas ay teer loolu moom fekkewuma ko waaye nag mën naa laa indi waxi sëñ Ibra Seck moom Tindoo di mi nga moom lii may wax nii moor di ma ko na ko guddee ngi ndox mi taxul mu am solo ak tàggu sëñ Tuubaa bëgg a làmb tub ñu ne ko ah. mu ne ko Touba hmm. day gàddu naa leen ndox mu dox leen ci dàgg ak hmm. waaye su ma fi jiitoo pali yàq waaye nag man mayis na la nga làmbatoo hmm. mu daal di dupp teen boobu woon ci marché Mbàkke Wakaas ba jàjji Mbàkke lañ ko daawa waaw ba mu ko duppee moom it 14 la ko duppi 1914 nga xam ne lii euh, mooy juróom juróom benn teen wala juróom ñaar yooyu daal man laa fi xam ci yoo xam ni ñoom ci la ñu daan jëriñu. Serigne Abdoulaye Mbacke mi ko wutu ci atum 1968 moom itam fet di waat laxasaayam ci lépp loo xamante ne bii taalibe yi daañ koy tëwoo ci dëkk bu sell bi di Touba ci noonu moom itam ci la ci yokkee lu bëri ci ay forage mu naa leen du ma leen muy Cheikh Abdou Khadre Mbacké di Serigne Saliou Mbacké mi nga xamante ne bii moo nekk juróomeelu xalifa Serigne Touba kenn ku ci nekk def na liggéey bu am solo ci wàllu ndox mi waaye ki nga xamante ne bii moo nekk juróomeelu xalifa Serigne Touba moo sos nag kuréel gii di Maawu Rahmati ci atum 2006 yëkkati fukki million ci koppari CFA tàmbalee ko liggéey bi waaye soññe ko nag mbooleem taalibe yi waaye jiital ci Serigne Cheikh Aliou Mbacké mu ànd ko ak mbooleem ñi nga xamante ne bii ñoo jotoon diggal ci Serigne Saliou Mbacké. ba bi Serigne Saliou Mbacké ñëwee te bëgg ndox mu yaatu ci dëkk bi jël lu ñuy wax maa ur rahmati dénk ko Serigne Cheikh Aliou moom Serigne Aliou moom Serigne Modou Moustapha moom Cheikh Ahmadou Bamba sëriñ Cheikh Aliou Mbacke jiital gi ko sëriñ Saliou Mbacke jiital ci bopp maaw raxmati yelloon na ko lool ndax fépp foo xamante ne bii war nañ faa jaar ci sàkku xam-xam jaar na fa moom sang bi mu ngi feeñ jamono ci atum 1947 gannaaw loolu itam fépp foo xamante ne bii doomu soxna baaxoon na faa jaar ci wàllu alxuraanu karim jaar na fa lii firnde ji mooy jaar na kër sëriñ Modou Binta ca Louga ak dëkk bu ñuy wax mbaam jigaan gannaaw bi mu mokkalee alxuraanu karim bind na itam kaamil dellusiwaat nag ci biir dëkk bu sell bii di Touba ci loxo imaam Serigne Cheikh Sey jaar itam ca Taïf ci kër baay Serigne jiite gannaaw bi itam mu boole ko ak Serigne Mbacke Soxna Lo ci lépp loo xamante ne bii jëm na ci tëralu xam-xam foofa ca Taïf fa la defee atam mu njëkk ci école primaire gannaaw bi nag ci la dellusiwaat fii ci njaareem ci ndigalul sëriñ Cheikh mbake Gaynde Fatma Nek ci sering serigne ibrahim Dem ngir njangum majalis, ku xam serigne ibrahim Dem ne sering Modou Dem mi nga xamanteni bi bokku na ci njabotuk serigne Touba yu bari ño xamanteni ne jaar nañu ci loxom ci walu xam-xam ñu ragne ci serigne Abdou Khader mbake fofu ci njaare mom serigne Cheikh Aliou mbake ñetti at yamu fa def ci la am entrée en 6e waye mu nekkon ku suñ borom may ci walu njang ndax fep fu ñu dajale ndonga daara yi bokku na ci ñi nga xamanteni bi dañu sargal ngir seenu njambar gannaaw lolu mom Serigne Cheikh yu Mbacké mu dem nag ca Saint-Louis ci lycée Charles de Gaulle fa la amee brevet d'étude te boobu li ci gën a yéeme mooy mi ngi def quatrième mu am bac nag ci lycée Blaise Diagne ca Ndakaaru waaye muy ku teel a am xaas lool ci wàllu njàng mi ci noonu nag ci la demee ci département arabe ci université Cheikh Anta bu Dakar gannaaw bi nag mu dem Tunisie institut gi gannaaw bi mu jógee foofu mu dem Paris ca Sorbonne ci lañu ko orienté nag ci université ak Mirail gannaaw ba mu fa bàyyikoo ci la dem Angleterre moom Serigne Cheikh Aliou Mbacké ni Serigne Touba digle jàng ak jaamu yàlla ak liggéey bëri na ay liggéey yoo xamante ne bii jot na ko def foofee ca France ñu ràññee ci nag yëngatu gu mu daan yëngatu ci wàllu pièces détachées àndoon ko itam ak ay xaritam ku ci mel ne Pape Diop nekk jamono ji maire ci Thiès ak Serigne Mbacké Bousso gannaaw bi mu dellu see ci réewum Sénégal indaale ay lijaasa ci kilifteefu Serigne Ahmadou Mbacké Tindodi ak waajuram sëriñ Aliou Mbacke dañu ko boole nag ak sëriñ Abdoulaye mi nekkoon ñetteelu xalif général des Mourides moom moo ko booleeg Samba Yalla Diop mi nekkoon jëruñ juñ dénk lépp lu jëm ci wàllu hydraulique ci réewum Sénégal ni ki noonu jëruñ ji wóolu ko lool waaye dénk ko nag ay ay liggéey yu am solo ngir expérience bu mu am ci wàllu ndox ñu boole ko ci acteur actif sur le programme d'urgence de l'hydraulique jamono yooyu président Abdou Diouf moo jiitewoon réewum Sénégal ak ci wàllu bind ak làkk tax na itam sëriñ Mbacke Madina mu def ay liggéey yu am solo ci wàllu diiwaan yi nga xamante ne bii ñenn ñu fekk baax ci réew Mauritanie bindoon nañu ko waaye boole ko itam ak Serigne Abdoulaye Mbacké ci wàllu liggéey ku ci farlu la ndax bëri na ay barabu liggéeyukaay yoo xamante ne bii taxawal na ko lu ci mel ne ay rajo di jant BFM ak ceneer digganteem ak njabootu sëriñ Touba Cheikh Ahmad nekk na lu ràññiku lool firnde ji mooy sëriñ Saliou Mbacké moo ko dénk maawu raxmati waaye Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacké Falilou ko ba ci Cheikh Sidi moom it dama ko woon mu saxal yu laaj ko seen mbirum kii bi mu toll mbirum tamit fu mu toll wax ma ci ay xalaatam ba àggal ba tax na moo tax ma woowaat ko léegi ne ko gannaaw mu sëñ Cheikh Saliou woo ko defoon ci tànnoon la doy loo la teg la fi kon nag gannaaw léegi dugg nañ ba léegi nag kon dama bëgg noonee la sëñ Saliou tegoon foofee mu doo tegoon nga doxin fa doxin wu sel gu rafet ba aksi fi tay ma bëgg tegaat la foofee nga nga yeesal ko ngeen dox doxin wa ngeen daa doxee loolu moom taxaw moom moom daa ko woon wax ko ko ne ko nang ko ne ko nang ko wax ñu ko bokkal ñëpp waaw waaw hmm. taxaw na moom mii laa fa teg na na ba tëddee woon bu njëkk rek nañ ko tëddee noonu rek moom mii nag mooy mooy njiit li waaw waaw nañ ko tëddee woon bu njëkk rek na ngeen ko na ngeen bureau ba na ngeen ko doxalee noonu rek loolu moo doon loolu moo doon woote bi moo doon digal li itam waaw bëgg na bu baax waaw. ngi jot ci kilifa yi ak taalibe yi ñu def ci seen loxo nañ ko laa defe jëf ci di ci dox di ci wax di ci jëf nañ ko def jox naa ko ndigal ñëpp kilifa yi kilifa yeeg taalibe yeeg ñu nekk seen gannaaw ñëpp jox nañu ndigal ñu def ci seen loxo nañ ko laa moom Cheikh Modou Lamine Baara Mbacke Falilou bokk na ci ñi nga xamante ne bii ay xalifay Serigne Touba lañ yu teg tànk ci maamu rahmat yi. nuy sant yàlla bu baax ci ndigal li nga xam ne sëñ Saliou Mbacke joxoon nañu ko ci wàllu ndoxum Touba mu doon ku bëri yërmande ku baax ku sëriñ Touba ñor ku njaboot Serigne Touba ñoroon ku umal islam yi yëpp ñor ndigal la nag nam ñu ko joxe woon kenn ku ne xam na ne. Euh, jéem nañ ca suñ kemtalaay kattan mag ñu ko joxewoon ci ñaar fukk ak juróom-ñaar ci kon ren di ci fukki at euh, nu jéem caa bay waar ci waar woowu tobbi sa woowu mun tobbil sëñ bi ko joxoon ndigal ci lii alañ war a fetliku sëñ bi dikk fetliku bi sëriñ bi ñëwee itam daf ko woo ba mu ñëw mu ko dama bëgg nga jaayante ba mu koy wax jaayante xam na ne du nekk lu yomb ndax liggéey yombul def lu baax yombul rawatina ci euh, barab boo xam ne fa nekk ak say nawle nekk fa ak say mag nekk fa ak lépp ñu jox la nga yaay jiite foofu foofu jiite fa du yomb. foog ñu ñu ñu takk suñu digg fekk teg ci li mu nekk ngir jëm seen tubaab mu solo mooy la euh, liggéeyu seen tubaab ñun ñëpp ñoo ci a jàpp ndax ñoom seen doxee rafet na lool peut-être ndax maa ngi fay dem ci ci biir dëkk bi ak li ak ak li wër dëkk bi. kon nag ñun ñëpp nañ ci dooleel jàppal suñu suñu jàppaay. yaa am xam-xam. donc waaye fii fii fii fii toll wax xam nga Touba dëkk boo xam ne dara xewul lu mat 2 millions de personnes lañ fi yeewoo problème ndox moom wax dëgg yàlla dafa te itam ndox mi xam naa loolu technicien yi mu mel ni Malick Badiane nga xam ni tubaakal seen njàng xóot na ci gestion bu ne danañ leen ci gën a wax gën a leer waaye seen seen liñ ci jànkuwante fa nga ko ko fa nga ko jëlee ak fa surtout nga xam ne wax dëgg yàlla gannaaw bi mu jotee ndigal ci Serigne Saliou Mbacke ci atum li mu njëkk def mooy yaatal woo ñëpp ñi nga xamante ne bii ñoom la bokkal Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba dugal leen ci biir liggéey bi ngir ñu def ko ni ko sang bu tedd bi bëggee. jéem nañ ca ànd ko ak njabootu Serigne Touba gannaaw bi nag mu tàmbali programme bu am solo ngir doxal liggéey bi nga xamante ne bii moo di maaw raxmati bokk na ci li ñu njëkkee mooy fuite yi nga xamante ne bii mi ngi am ci dëkk bu sell bi di Touba manaam tooy yi nga xamante ne bii dafa bënn te taxawuñ leen. bokk na ci liggéey bu am solo bu mu def fexe ba ni ñu daan yàqe ndox mi ci biir dëkk bu sell bi di Touba lu ci mel ne tool yi ak tabax yi nga xamante ne bii ñi ngi ko fi tabax loolu lépp mu fexe ba dakkal ko bokk na ci liggéeyu am solo yu ñu def ci biir dëkk bu sell bi di Touba Serigne Cheikh Aliou Mbacké ak ñi mu àndal fexe nañ ba lëkkalee mbooleem forage yi nekkee ci biir dëkk bu sell bi di Touba ñu koy wax maaye lu yomb lu ne dañ koy xaw a sàggane nga xam ne yàq gi ci ndox mi bari na ñu moytu jàppandoo rek te xam ne ñun ñëpp benn lanu lu baax rek la ñëpp bëgg kon nag ginnaaw yërmande ji fi am ci tubaa amul fenn te kenn ku ne gis na ne Ndakaaru géej ndox ak feneen kenn ku ne sa buntu kër lay sa buntu kër yaa ngi cay fay lu ëpp fukki junni te fii fayuñu wax dëgg yàlla koy itam loolu nu xam ne xéewal googu itam dañ koo war a gën a sàmm ndax jamono daa soppiku te e, wax dëgg yàlla ndox la koy génnee xaw a jafe lool. seenu njàmbaar bokk na ci li koy wone ci wàllu fuite yooyu lu toll ci 10 897 tuyaux yoo xamante ne bii benn bu ci nekk ba noon na te ñoom ñoo ko defar loolu itam tax na dëkk bu sell bi di tuubaa ndox mi gën a am doole. ba mu yàqoo ñu indiwaat fi yeneen tuyau yu bees léegi nag daal di dagg tuyau bi daal di yéeg mbànd mi bi daan def ndox ci mbànd mi waa semaine dafay ñëw dindi ko léegi ñu gasal ñu ay tuyau ñu ci root fii moom wax dëgg yàlla moom ndox moom gëj na fee ñàkk. teen bi fi nekkoon Petite Semaine la tuddoon di ci root mu jafe ndox lool léegi nag teen bi. dafa demoon ba amatul ndox jamono yooyu de jamonoy Sëñ Abdou Lahad la woon ba ci jamonoy ba ci jamonoy sëñ sëñ ba ci jamonoy sëñ Saaliw ci jamonoy sëñ Saaliw nag ci la xéewal gi tàmbule ba baawaan fu ne ba léegi ndox moom amatuñ ci jafe-jafe suba teel dem di rooti duñu tala lekk duñu tala naan ndax ñàkk ndox waaye fi mu nii moom wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax ndox ndox meeg lépp dugg si na ñu ngi sant bu baax waaw maawa raxmati daal moom ñu leen di ñaanal rek yalla yagal leen fi may leen gudd fan ak wér gu yaram ndax vraiment ñu ngi jàppale jigéen ñi bu baax. solo su taxawaayu maaw rahmatu am ci bi dekk bu sel bi di Touba bokku na ci likoy firndel lekkolo gum gu état bu Sénégal ngir bép forage bo xamanteni bi pan na ci bi dekk bu sel bi di Touba mu def ci ab soññee waye lëkkale dolem ak état ba ñu mën ko défar suñu activité fi moy liggéey ci ndox bi yaxanal ndox bi defar ndox bi ba ñepp mën cee jarñoo et le gouvernement du Sénégal ak ses partenaires ñu ngi ci que ba léegi di saytu forage yi di forage yi faire def extension de réseau at bu à l'occasion grand magal day am lu phase préparatoire du grand magal ci moment yooyu la ñuy a vraiment gis liggéeyu état bi ak ses partenaires dañ ci forage dañ def entretien forage nous extension de réseau pour dormir au niveau des quartiers tous les quartiers de Touba donc le pour que vraiment population yi am ndox bu sel ndox bu baax Nous ndox bi loolu nga def parce que gis nañu at ci forage ci forage Touba actuellement on est à 25 forages def entretien ñu def ay créer ay équipe de plombiers yi nga xam ne ñu ngi fii maa war xamante am na équipe hydraulique am na équipe de plombiers yi nga xam ni ñoom ñooy saytu réseau bi nga xam ni dafa yaatu réseau bi c'est parce que boo koy estimé c'est plus de 800 de réseau diamètre yëpp ñu ngi ci diamètre de 315 ba diamètre de 90 diamètre loolu yëpp moo tasaaroo ci Euh, ci dëkk bi surtout que loolu pour saytu ko lu jafe la mais teewul mu ngi def ay effort maa war a xamante nga def effort lëkkaloo ko hydraulique def effort nga xam ni di minimiser perte d'eau yi nga xam ni moom mooy am ci réseau bi yaakaar naa jamono ñuy toll maa rahmati mën na leneen dem bu dem bay créer forage dem bay def extension de réseau am loolu vraiment ay jéego yu mag la maa rahmati def actuellement nii ak unité de potabilisation bi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi vraiment nit naa wax ni naanatuñu ndoxu forage. Maawu rax Maawu Rahmati jàppale dindi mboolem feebar yoon yi fi nekkoon ndax kenn naantu ndox mu naqari. moom wax dëgg yàlla bañ ko tàmbalee am ak léegi moom macha allah moom yokk na wér gi yaram ñëpp ci maasa di naan xale yi sax bu ñuy jàngi dañuy di bidon yu ndox di yóbbaale. ndox mu neex mi Maawu Rahmati dana nu ko joxe juróom-ñetti téeméer waaye ndigal li nga ko ko joxe woon ñaar fukk ak juróom yokkagu ko wàññeeku ko ndax xamaguñ ndigal. xanaa neex ak sell nag baax ci xale yi baax ci mag nun daanaka jëndatuñ sa sey ndax maaw raxmatu doy nañ sëkk daa yomb ci nun lool nag ndax bi ñuy doog a ñëw rek lan doon naan waaye nag jërëjëf sëriñ Touba nun daal xam naa ne wutatuñ menn ndox lu dul maaw raxmatu doy nanu sell na neex na te am nañ ci wér gu ndax jigéen ñi dañ daa xorom fenn fa ne ñu defi dem ba yàlla dogalee ndox mi ñam ak léegi amatuñ jigéen ju xorom rooteetu ndox mu neex amatul dara lu ñuy jàmbat ci suñu yaram wala ñu di ko jàmbat ci sunu njaboot ñu ngi ci sant yàlla bu baax di sant ñi nga xam ne ñoo amee liggéey bi di leen ñaanal xéewal goo xam ne yàlla nañ ci am xéewal gu kawi seen jort daal. lii yéex na ko daal te di ñaan mu gën a yaatu ndax ndox mu am solo la neex na baax na ci wér-gu-yaram. maanaam waa moom xam nga am na ñooñu umpale ne ndox mi dañ koy fay waaye ndox mi sëñ bi da koy fay. te ñun ñii toog benn ci man man lu mu gàtt gàtt sama fas bu xëyee ba jant soo bu boolee li mu sangoo ak li mu naan dana mat ñeenti paan kooku mu ko doon jënd paan fukki dërëm kooku weer wi lu mu doon bëccëg 200 kon suñu borom dimbali nañu ci loolu dooy na sant yàlla sëñ Cheikh àll it man naw naa ko ndax dégg naa ko yàgg naa ko dégg gis naa ko ku am fit la ku am fulla la ku am fayda la it nag ku bëgg Serigne Touba la it nag naw naa ko lool waaye na nga bàyyi xel ne man Ibrahima Niang day fii laa nekk wur na jëmi Serigne Touba day ca kanam rek lay jëm ko ko bañit da ngay féete gannaaw rek mais li muy def yàlla moo tax mu ko def ak Serigne Touba li muy liggéeyal Serigne Touba gis nañ ko bu baax a baax gis naa ci sama bopp bu baax a baax man Malick Badiane mi gane àdduna ci atum 1973 ca Dakar mi ngi door am njàngam ci atum 1981 de l'école 13 de ci 1987 j'ai entré entré entrée en sixième d'or cycle secondaire En 1992 qui la am brevet de fin d'études En 1996 mu un baccalauréat au lycée Limamou Laye daa à l'université université fac droit En 1999 j'ai la licence administration publique En 2001 mu dadi maîtrise en droit public En 2001 2003 j'ai la am diplôme d'études et d'administration droit public muy DEA atum 2006 bi Serigne Saliou Mbacke Xaadim Rasool joxe ndigal Serigne Cheikh Aliou Mbacke ngir mu sos Maawu Rahmati ci la ko daal di jébbal liggéey bi waaye xereñ gu mu xereñ ak lijaasa yu mu am ci wàllu administration tax na Serigne Cheikh Aliou Mbacke yëkkati lépp nag jébbal ko ko boobu ba léegi nag mu ci wane lool ak cawarte ak xereñ waaye tamit bëgg gu mu bëgg liggéey bi. jéema maawu raxmati eh, ñi ngi ko taxawal ci 27 mai 2006 li ko taxaw na jóg mooy jàppale li nga xam ne mooy état bi ci anam yi nga xam ne moom lay yore ndox mi fii ci dëkk bi di tuubaa anam yooyu nag daf ci bariwoon ay pàcc bokk na ci pàcc yooyu ñu limal leen ko ak lu ci ne lan la ci Maawu Rahmati def ci fukki at yooyu bi ci njëkk te mu doonoon lu seen Serigne Saliou ci jamono yooyu mooy bën bën yi nga xam ne daan am ci dëkk bi maanaam tiwo yooyu di toj loolu Maawu Rahmati defar na ci lu tollook ñaari junni ak téeméer ak juróom benn fukk ak juróom loolu ngay gis moom muy ay bën bën yu toj la koy defar ay nit la yoo xam ne dañuy dem ci barab yooyu wut ay liggéeykat yoo xam ne ay manœuvre lañ yoo xam ne ñoo koy defar wutit ay pièces yoo xam ne moom lañ koy def ngir saafara toj-toj yooyu toj-toj yooyu nag nekk na ci ay tiwo yoo xam ne ni ñu toll dañoo wuute ndax Touba li fi ne ci tiwo diamètre yi

tiwo yooyu mi ngi toll ci 66 millions 652 mille maanaam ci wolof mooy juróom benn fukki million ak juróom benn yu tegal téeméeri junni ak fukk ak ñaar loolu la xayma bi ci wolof ci li nga xam ne def nañ ko ci lii nga xam ne mooy fatt bën bëni beneen pàcc bi ci topp mooy ay oto ndax Touba seet nañ ne bëri na ay gox yoo xam ne tuyau yi yeggu fa te it faaw ñu wut ay pexe ñu leen jàppale ngir ndox ma yegg fa loolu tax na ñu wut ay oto yu ñuy woowee ay camion citerne mu toll ci juróom-ñeent yoo xam ne Maawu Rahmati jënd na ko lam ci jublu moo di gox yi nga xam ne amuñu ndox wala forage bu paanee ci benn gox te ñu am jafe-jafe pour am ko ñu jël kamiyon yooyu yóbbu ko fa ngir jàppale leen ci wàllum ndox loolu nag maawu raxmati def na ci ci xaalis lu tolloog cent vingt huit millions sept cent vingt cinq mille francs cent vingt huit millions mooy téeméeri million ak ñaar fukk ak juróom-ñett ak téeméeri junni ak ñeent fukki junni ak juróom ci xaalis def na ko ci loolu nga xam ne mooy oto yooyu mu doon sàkku ngir jàppandal li nga xam ne mooy askan wi ñu am ci ndox oto yooyu tamit bokk na ci oto yi nga xam ne ay oto yu ndaw lañ te ñooy wër di defar li nga xam ne mooy bën bën yooyu ak ak it di def ay intervention ci li nga xam ne moo di réseau bi loolu it Maou Rahmati sàkku na ci ñett yoo xam ne loolu mooy euh, rôle am ci wàllu liggéey bi beneen pàcc bi mooy wàllu carburant ndax noonu ma leen ko waxee woon ngir fuite yi carburant ngay def ci oto yooyu moom mu dem defari ko camion yooyu di jox nit ñi gox ndox ndox ci gox goxaan yi carburant nga ciy def ngir ñu mën faa yegg forage yi nga xam ne dañuy panne oto bi koy defar muy grue bi koy def ak camion yi jël bagage yi carburant moom lañ koy ciy defee grue yi dañ daan am ay jafe-jafe courant da daan coupé loolu it carburant lañ ci daan def xew-xew yi nga xam dafi am muy événement religieux yi muy màggal yi Maawu Rahmati day jàppale organisateur yooyu ci wàllu carburant kon ci pàcc yooyu li nga xam ne moom la Maawu Rahmati di def bokk na ci carburant bi nga xam ne da koy jox lii nga xam ne mooy unité de maintenance bi nekk Touba te nekk ministère de l'hydraulique te ñu leen di jàppale ndax yitte yi nga xam ne moo doon yitte Maawu Rahmati mooy jàppale état bi euh, comité euh, unité de maintenance boobu yor nañ ñetti oto ben auto bi moy auto électromécanicien bi nga xamné mo wara di def touru forage di xol forage bu am jafé jafé wala bu amé panne mu dem di ko def intervention am nañ camion bu auto euh, euh, bo xamné momit pour dem ci tiwo yu toji di ko defar ak ki nga xamné moy sen seen coordonnateur ki nga xamné moy jeuwriñ yor mbir mi momit dañ koy jox carburant bes bu nek lu euh fukki litre auto bu nek loolu ci xayma Euh, biñ ko defee ci fukki at yi mu ngi toll ci 89 euh, millions 488 mille francs day nekk juróom ñett fukki millions ak juróom yu teg juróom-ñeent fukki junni ak juróom-benn ak juróom-benn téeméer beneen pàcc bi mooy wàll wi nga xam ne ñu ngi ci jàppale état bi mooy forage bu paan ñu dem di ko defar di ko ci jàppale ci defar boobu ndax lépp loo xam ne pièce la. maawu raxmati moo ko sasoo état bi nag mooy jël li nga xam ne mooy pompe yi nga xam ne paan nañ ci forage yi loolu it pièce électronique la ay accessoire la ak it prise en charge bi nga xam ne équipe boobu di ñëw di def intervention bi lañ leen di taxawoo ngir ñu mën a saafara loolu loolu it maaw raxmati moo koy def ci fukki at yooyu ci loolu rek maaw raxmati def na ci lu tolloo soixante-deux dix-neuf millions quatre cent mille huit mi ngi nekk juróom-ñaar fukki million ak juróom-ñeent yu tegal juróom-ñeent fukki junni ak juróom-benn ak téeméer ak juróom-benn fukk Maawu Rahmati yëngatu na ci wàllu jàppale askan wi nga xam ne dañoo nekk ci gox yoo xaw ne xaw nañoo sori te amuñu ay tiwo loolu it Maawu Rahmati su ko mënee dafa am ñu ko ci jàppale te bokk na ci ñooñu alxaaji sëriñ géey alxaaji manjaay jong sëriñ jañ gajaga ak it taalibe yi nga xam ne ñoo yëkkati seen alal di ko ci def loolu Maou Rahmati def na ci lu tollook 83 kilomètres muy juróom-ñett fukk ak ñett ci ay kilomètres ci yokk ndox mi ci li nga xam ne mooy réseau bi Touba am te loolu it bépp village bu nekk tuuba rek la nga xam ne moo ciy sa cër Maou Rahmati jox na la ko loolu bi ñu ko defee ndax tiwo yi gas bi ña koy defar lépp dafa am loo xam ne da koy waralu ñoom mi ngi toll ci xaalis ci ñaari téeméer ak fukk ak juróom benn ci ay millions yu manqué ñaar téeméer ak ñeent fukk loolu nag jàpp nañ ne ak njàmbaar ak góorgóorlu nekk na ci waaye dëgg-dëgg li dëkk bi soxla ci wàllu tiwo romb na foofu ci lu bari kon fas nañ yéene ci lii ñu jëm ñu mën cee dolliwaat lu tolloog ñaar téeméer ak juróom fukki kilomètre te mu yaatal te mu yaatu yegg ci village yëpp comme niñ ko defee woon ci njàlbeen gi li nga xam ne moo di forage yi maawu it def na ci lu tolloog ñett ci lii ci biir dëkk bi def ci benn fële ci Daaru Salaam Darma kon ci wàllu forage yi ngir li nga xam ne mooy yokk ndoxum Touba Maou Rahmati nag dox na ci ay jéego yu am solo loolu it li tax mu jàppandi mooy ay taalibe yoo xam ne def nañ ci seen doole mën nañ cee lim ku mel ni sëriñ bu ci forage bii nga xam ne moo nekk Daaru Rahman 2 ci boori Bokkatul Mubarak keneen ki nga xam ne moom bokk na ci ñi jàppale Maou Rahmati Alaaji Mandiaye Jong def na fi lu tollook ñaari forage benn bi moo nekk daaru salaam darma benn bi moo nekk fii nga xam ne moo di ndindi ndigal am na beneen forage it boo xam ne ki ko joxe sàkku ñu bañ tudd turam forage boobu moom la ñu bëgg a def fii ci daara ji ci université kon mu toll ci ñeenti forage yoo xam ne maawu raxmati dolli na ko ci lii nga xam ne moom la dëkk bi am mu toll ci xaalis ñetti téeméer yu tegal ñaar ci ay millions kon jamono ji ñu nek Touba mi ngi am ñaar fukki forage ak ñet te di produire ci walu ndox lu tollok juroom ñeen fukki million ci ay litre bes bu yalla sak benen patch bi moy li nga xamne mom lañ nane emploi mooy ñi nga xamne ma Maawu Rahmati jël na leen ñuy and ak mom di liggéey ci li nga xamne mom lañ leen limal ci lu wessu emploi yoy mi ngi toll ci juroom ñet fukk ak juroom ñaar ñooñu nag ay employé lu ñu tuddee permanent lañ yoo xam ne dañ fee sax mais teewul Maawu Rahmati dina jël ay nit yoo xam ne ay journalier la ñuy doon wala ñoo xam ne service benn prestation boo xam ne benn service la boo xam ne dañ leen koy defloo ñu leen koy fay loolu nag du saa ne waaye boo saa bu ko liggéey bi laajee rek dañ koy def loolu euh, li ñu xam ne génne nañ ko ci xaalis ci wàllu salaire yooyu mi ngi toll ci 333 millions 600 mille maanaam ñetti téeméer ak fanweer ak ñett ci ay millions yu tegal téeméeri junni ak ñaar fukk jàpp nañ ne loolu nga xam ne personnel la bu Maawu Rahmati jël lu néew la par rapport ak li nga xam ne moom la population bi soxla wala boog lu néew la par rapport ak li nga xam ne moom la population Touba toll te ñu koy xayma ci un million cinq cent mille habitants muy benn million bu tegal téeméeri junni ci ay ci ay doomu aadama ka abduka kon li nga xam ne moom la Maawu Rahmati def ci xaalis ci yooyu ñu leen limal mi ngi toll ci un milliard deux cent quinze millions neuf cent quarante mille huit maanaam benn milliard ak ñaar téeméer ak fukk ak juróom benn ci ay million yu manqué fukki junni ak benn ak ñaar téeméer ak ñeent fukk léegi nag li nga xam ne moom la Maaw di doxe mooy li waay def da koy dugal ci compte banque yi kon lii nga xam ne moom la ñuy liggéeyee ay chèque la yoo xam ne bind nañ ko génne ko dugalaat ko fayee ko maanaam lii nga xam ne moo jëmoon ci liggéey bi la ca des nag day des ca compte banque ya ngir mën a wéyal liggéey bi loolu mu ngi toll ci 92 millions 348 mille 312 moo ngi maanaam loolu mooy xaalis bi nga xam ne ci li nit ñi di def ci biir liggéey bi moom moo des te mu nekk ci compte banque yi mu toll ci 92 millions 348 mille 312. comme maaw rahmati rek waaye lanu waroon dëgg-dëgg nu waroon caa jàppi dëgg-dëgg jàpp xam naa dox na naam waaye ci sama gis-gis laa wax de ak man mi wax. li ma gëm ci sama bopp mooy waroon nañoo defaat jéegu bu rëy bala may wax dara damay soññaat sunu bopp noonu nit it xam ne yëg nañ ne loolu moo nu waroon waaye nag ñu jégal nu rek xam ne barkeb sëñ Touba moo yaatu be yomb naa yaafus loo nit lool ndax dafa barke bi dafa yaatu tamay yi bari ba tax na doo yëg sax ne jëf nga da ngay defee ne sax yaa ngi ci biir jëf ji fekk yaa ngi taxaw di seetaan. kon nag ñun ñëpp nañ nañ tokkuwaat nekk lépp nga fa moom. kon nag ñëpp boobu xam fi mu jëm ko jëmukaay la tey ku sañoon Sëñ Tuubaa liggéeyal la hmm. rawatee nag dëkk toll ni Tuubaa rawatee nag toll ni ndoxum Tuubaa hmm. xam ne jàmm yàlla mu di sell mu kutam ndox àndu ci. kon fas nañu yéen a ràngase waat ci Maa-u Rahma ànd koog yéen ànd koog moom ba ni nga xam ne ni la ko sëriñ bi bëggee saa su xëyee ñu ci teg bët. mooy gën a euh, kawe ndax sëñ Tuubaa bu def ku def ci dara ci moom la yokk. laa ci doon gën a fàttaliku mooy fii ne waaye nag bitim réew dama faa ne euh, am fa ku ñuy wax Cheikh Fall Ndiaye mi ngi Kébémer la dëkk waaye ma nga Italie dama ko dafa jàpp ci ndox mi lool moom it fu ma ko fekk maa ngi koy soññ ci loolu moo soññ boppam sax ndax taalibe la waaw taalibe la moom Cheikh Fall Ndiaye la tudd ngeen gën a xam loolu moom itam bu ko defee mu gën a jàpp soññ ci ñi nga xam ne ña nga ca euh, Italie ak beneen bitim réew rek ku fa nekk nga xam ni sëñ bi daal moo ko ñaanoon te li sëñ bi ñaanoon day am kon ku ci bëgg a jariñu rek danga nga ciy bokk jërë ngeen jëf. beneen bi ci des it mooy euh, li mu sens de l'organisation bi mu am mooy lan li mu xool xam ne. ñi ko seq ñëpp ay kilifa lañ kenn ku nekk am na yeneen mission yoo amoon démb ak bërki démb ca léeg-léeg ngeen toog waxtaan delluwaat kenn ku nekk delluwaat ci yitteem di xalaataat loolu wàññ wàññiwul dara kon loola yaakaar naa bu buñ ko jëlee noonu taxaw mu nekkoon léegi nañ wutaat beneen organisation interne boo xam ne am mooy loo xam dañ fa nekk en permanence moo tax mu créé waat benn administration boo xam ne nii day woon un administrateur ak ñi nga xam ne ñoom lay ànd di leen administrer di dem noonu kon doxalin woowu laal yaakaar naa indi na ci benn sens organisation boo xam ne am na te boo àndeek moom rek da ko ci biir a xam euh, nit nag bu xasee ba am sens de la réussite nga xam ne jàpp neen luñ ko def dafa war lu ñu ko jox dafa war a réussir ba noppi di ci dawaleel ay kilifaam nag lépp lu ci taq-taq <laughs> waaw lépp lu ci taq taq da ko ci dawale ba ci sëñ Saliou ba ci sëñ Baare ba sëñ Sidi Moxtaar am na ci yoo xam ne heure bu ko nit ñi nos bay àgg daf naan lu ma dul def sama bopp du ma ko teg sama wayjur du leen ko teg waaw te bëgguma leen ko teg kon loolu mooy yaa ngi liggéey nit ki wante yaa ngi koy bàyyi xel ci li nga xam ne mooy di dignité ba mu mën a àgg te boobu ba léegi suñu borom ma ko ci dimbali ba mu agsi fii ci réussite réussite bi laa lool la mooy kenn ku nekk ba ñu totoog waxtaan yow kenn ku teg ba ñu totoog déglu la ka muy joteel mooy ki nga xam ne da koo bëgg benn cib liggéeyam wala nga indil ko lu xamul kooku moom ca saasa moom da ngeen daal di am dig boo xam dana am wante nag boo ci jógee yaa koy topp wante moom la muy saafara bu ko saafara ba delluwaat na fa mu nekkoon. kon nag loolu euh, ay qualité la yoo xam ne ni euh, boo dee gisee li tax mu doon benn leadership doon benn management hors pair loolu moo ko ko waral. ba ngeen jaayante ànd ak moom ci liggéey bi te ba tax liggéey bi deltuwut gannaaw dafa avancé lool ci wet yépp ci ndox mu neex mi ak defaraat taataayeeg. yu sani, malikeng Malick a ngi nii léeg-léeg da koy wo da ngay rus sax lo xamne defo ci ben dërëm bi may wax li sax man koy wax ne ko ah sama kër gu ne barab sangam ndax tew ba ci buntu kër ba ndax ndax xol nga ko ah lolu lolu wax deug yalla kersa la sax ndax man amna luma defare tew bi waye man lo rek la koy wax te ñaare aduna man na ma ci fek bu malik yëg-yëg boobu ak yar bi ak bëgg a liggéey mu wane ma naneen ma mere ko te wax dëgg yàlla du ma ko mere itam eh, teew bu manqué fii du ma xaar Malick ah, eh, te bu ñu defee nañ waroon a def waxuma biir Touba sax mais teew yi nekk ci dëkki dëkki sëñ Touba yi maawu raxmati dafay àgg mën naa àgg fu ne xam nga xanaa foofa defe ne mënoo fa yow waaye man li ma gëm mooy mën naa àgg fu ne ay jasili ni'mati la xuruji ma hiya jasili ni'mati la xuruji الحمد لله جزيل لا إله إلا الله على خروج ما هي عين رحمة عين رحمة الحمد لله جزيل جزيل نعمة للمصطفى رمت صلاة ما لا إله إلا الله علي لوازابي من الله سلام الحمد لله اي جزيل نعمتي نعمتي على خروج ما عين رحمتي رحمتي حفظتنا يا من لو اله الا الله الاخادي والعسى والفريات رحمتي Yeah.